Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa daayira Hizbut Sudur ñoo ngi leen ni baax te leen siyaar si seen jotaay bi nga xam ne moom lañu baaxoo ànd ak yéen muy yóbbalu bis bi tey ñu tànn loo xam ne lu mat bàyyi xel la ñu fas yéene waxtaane muy yéene yéene ndax jëf moom lu mu baax baax bu àddul ak yéene demel day des lu bari yéen nak ay histoire bari ñew na si ak ay net li bari ñew na ci waaye dañuy tan ki nga xamne ay waxam mo mat tan te lo si jele mu doy la muy Seexul khadim waxna ci yene ndax neena bu fekke ne da ngay jang alxuraanu karim serigne touba ne da nga ci yene genn ci mbolen la sa borom tanalul tayit nga yene ci dugg ci mbolen li la sa borom tanal muy ki jang na yéene génn ci li sunu borom tànnalul te yéene dugg ci li ko sunu borom tànnal ci jàng alxuraan boobu daal ne bu fekkee ne da ngay jàng ak xasida ci sama xasida yi man Serigne Touba na nga ci yéene lu la neex mën nga ko ci yéene lu la neex mën nga ko ci yéene kon danga ko am na nga ko bëggee waaye da see teg leneen da bu fekkee ci xasida yi nga xam si ne moom laay def ginnaaw bi ma jugee jolof moo tax muy wax wala ci at ma nga xam si ne fa la jugee jolof waaye ko jiitu moom. Sëriñ Tuubaa nee na waxul xasida yooyu daal ne bu fekkee ne dangay ngay wirdu yow mi wirdu na nga ci yéene sunu borom jariñ la ci àdduna jariñ la ci alaxira ci lu dul loru ak it nga yéene ci jege sunu borom tabaaraka wa taala ak ab yonentam sallallahu taala alayhi wa jege goo xam ne dana la jariñ te doo ànd lor bu fekkee ne nag da ngay naafi la Sëriñ Tuubaa ci yéene dundal sunu yonent